tey am bés boo xamante ne sax ñu ne tey moom bu la leen taat màttee sax doo ko boobu nag yonent mu ngi lay des naa la xale la sa ko suma taxal bàyyi sa bopp tey ngeen romb foofu sànni seere yi saytaan nga jàpp sànni ko ñett daw dem aar fa ñu ne tey rek booy xam boo xam ne dootoo xam mm-hmm. yenn la su boobal ko li ñu feebar sax déri leen indi leen nañ fekk bés mm. benn xeer bu weex tàll tiim mbooloo weex tàll di leen nii xamoo leen ba ngoor ngeen yeen loo ñaan seen soxla te la ngeen fa war a ñaan mooy yàlla dindi seen kiraa ngeen jàppaloo saatin ak ngeen jóge fa yonent bi ne leen kaale fa salli li rabbika warham léegi ren di sa bopp xanaa kenn du ren di boppam njëkkee boppam wax tabaski maakaar ren mun ñoo wax ci téléphone ngeen ne lépp xaqiqa kese koor noonu julli boo ne allahu akbar dem ndax benn ganu seen bi réew ma sa ñëw ak si julli dina laaj dégg naa ñuy julli allahu akbar rek yenn taalibe yi def nag ñu ne xaal si biir julli comme yëfi aar bi rek ñu bëri rek ñu arrêt arrêt arrêt lii moom xamul ko lii moom fi changé dégg naa ko wax bàyyi bayi awa min da ranya Allah ko da gafira yau mi fitna eh ya kis ko yo ko ko da shi ko ko da wani da ranya Allah ko da تجيب لي حقيقة لو سكر سكر سكر ولا الله أكبر ولا الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم الدين وين بيستغرقوا ليه بيستغرقوا ليه بيستغرقوا ليه بيستغرقوا ليه yàlla taxaw ne xanaa du ma seen borom ñu ne balee dina saari ka yow muy jëm te bés boobu kañ te bi nga fëggee sa dënn dajale tur yëpp dajale mbir yëpp dajale jëmm yëpp yëpp di leen saari ka yow muy jëm laa jaaw sa xel mi dem ci sa gel mbaa mu dem ci sa xaar mbaa mu dem ci paar mbaa mu dem ci sa mer mbaa iya ya. ya, kum dem ci waxtu woowu nga kum gis ci waxtu woowu nga ne du moom nga xool ci daal loo sa ko xool nga ne moom te amul droit kon tuuti rek moom it buntu la pour nga àgg ci jamono yi nga dem ci asaka asaka daal lan la jëlal ci li nga moom nga tuddee ko sànq ma tuddee laa wax si yow yàlla wax ci alquran xuus min amwaalikum sadaqa jël leen ci alal ji ngeen moom moo tax alal du leewul kenn ci saraxe kenn ci jox boo ko tuddee saraxu sarax boo ko tuddee asaka du asaka parce que dèjà moom ci ci li nga moom ngay génne sarax ci li nga moom ci ngay génne asaka kon dèjà li moom li nga moom kon xaalisu pay bi xaalisu kaas xaalisu nangam doo ci sarax doo ci ajuma doo ci génne asaka parce que réew xus min xam waat jëlal ci ngeen moom ngeen tut ngeen génne ci loolu tuddee sarax baa ngeen jaamu ci yàlla ba ngeen moom dèjà doo ci jaamu yàlla ah kon sarax rek bokkul ci ci yow moo tax nga gis lu duhul yàlla sa bët yi leerax ci yow moo tax sa bët yi gis lu duhul yàlla sa nopp yi leerax ci yow moo tax ngay dégg lu duhul yàlla sa xol bi leerax ci sa xol bi di lu duhul yàlla sa sa sa sa sa bam jeex yàlla ne jëlal ci loo li nga nga ko ma dindi ci ci bu da nga mu set set rek la tax ko comme yonent yàlla Muhammad hadiisul qudsi nee na yàlla nee na amul benn sarax bu doomi aadama yëkkati ne da koy sarax yàlla nee na boo yëkkatee sarax bi di koy teg balaa moo laal la ko waa ji yàlla nee na sarax bi sax la ko la jëkkaat loolu mooy la loolu mooy la loolu mooy la yàlla ko teg ci loxo kii koy sarax yàlla nee na balaa mu koy teg ci loxo kii koy sarax sarax bi la takkal leen takkal leen yàlla def ko moo tax yonent bi bu daan joxee cadeau baa muy joxe dara jullit yi dañ ko doon jël pomp ko gëttal ko leen ko woon set maanaam dañ koy sopp li ñuy joxe parce que ci loxo ki ñu koy teg waaye nag wala di sànni moom dañ ko jël sànni ko parce que da ngay di sànni wala di ko moom rafet te pourtant kàlla beeg saaf bi yëpp ci même loxo nga koy teg bu fekkee ni ngir yàlla rek yàlla ko jël. moo tax juróomi fonk lislaam yëpp ashhadu an laa ilaaha ko waxee ni mu dëgg si yow sax daal di jeex. maa ngi seetlu ne yàlla rek nga yàlla soo àggee

loolu bu ñëwee kay bàyyi <laughs> ah bàyyi la de déedéet dëgg rek mooy tëj moo tax nag kon boo xoolee juróomi ponk islam yi lay yëkkati loo nga koy seede yëpp benn ci nekk mën na la may fàttu ndax koo jël daal yàlla yàlla mu rek parce que yàlla du lekk du naan balaa moom nga génn ci kon loo yàlla waaye am ne nee na yàlla la te koor gi bu ñëwee fekk na ko muy yàlla te bàyyi na ko muy yàlla. am koo xam ne nee na yàlla bi julli ji ñëwee fekk na ko muy yàlla bi julli gi jeexee bàyyi na ko muy yàlla. am na koo xam ne fi muy wax naan ashhadu an laa ilaaha illallaah mooy gën a xam li muy wax te bu ci noppee tamit amu ci dund. am na koo xam ne demee ba Makka. aj gi fekk na ko bu yàlla te bi aj gi jeexee continué di doon yàlla. moo tax yàlla mu ne man qaala inni ilaahu képp ku ne man yàlla laa te doon ko. safara la jot. waaye ki ko wax te doon ko nag kooku maanu leen ci moom ndax ku mun doon eh, doon yàlla du jël melo yàlla na melo leen melo yàlla kon ki mën a mel ki mën a doon yàlla moo ne melo meloom waaye ku mun a doon yàlla nag melo loo ko mel moo tax yow kenn la ku ne sama xaabaay nga wax ku ne ci li ngay génn nga wax loolu yëpp nag ñun ñu amee yëpp bi waa ñu am dégg-dégg bi yàlla إلى وجه الصحيح في كل إمام بعد طول الترفيه إلى التحريم فتناول سلام كل من لا يحتاج إلى التأثير. bépp xam-xam bu wér rek ci saabu saabu lay bëri moom la gars yi wax ma ko seen Abdoulaye Si borom Kira wax na wax ne yaa ndox ba tuuti la yow mi ñuy jukki ci biir borom xam-xam gën suñu basaar bi ñu ñàkk yow yëpp yow bàyyi yaay sëriñ si firi islam ci islam bii ñu xam war diini diini tam beneen firi diini rek beneen firi loolu la seen affaire si wax kon ñun képp kuy bàyyi wante moo tax incha allah bi ngay gàmmu Mouhamed yàlla ko yàlla yokk mooy ki bind téere yi ki bind tafsir am na téere bu mu nar a génne ci gàmmu bi képp ku woy bàyyi ci àdduna bi ñu ngi koy dajale dajale nañ ko sax ba pare ñu ngi koy mbool incha allah ci gàmmu bi dina ñëw même woyu sëñ Moussa Ka boobu sax dina ñëw ci téere bi ci arab dina ñëw téere bi ci ni mu ko woyee ci ëpp képp ku mës a woy mu ngi koy dajale danañ ko indi moo xam ku mën a kon nag yàlla na ko te amul kenn ku nar a wéy bàyyi nag ñu ko ah kii nag wax na bàyyi may wax ci moom moom luñ woy ci moom des luñ wax ci moom des luñ wax ci moom des moo tax naar bi daf ko waa yow yaay lëndëm bu ba kenn gisante wu waaw yow yaay bëccëg bu ne daan ba bu xool loo luñ xool la mais yow waa yaay lëndëm ba buñ lambanteewul duñ garante duñ xam waa yow yaay nag jàpp ko la xam ko ba ba ba ba ba ba ku ne gis luñ bëgg waa ji ñëw ne ko ah gis naa géej bu foog ci kaw la dalal bi tooy ah gis naa garab buy ut xam nga jant buy kee passé loolu garab kenn loolu la. ku ne rek naka la koo xam dem naa ne laaj jant. maa koy laaj boobu ba ndax mos naa gis ku mel ni yow bàyyi na ko comme que jant ak weer tontu wul la mu ko noppi. nit wëy na ko ba dend moom ne ko maqaamaam bi sax ci moom moom bàyyi xamul maqaamaam bàyyi ni ko man lu fanaan ci man lu yendu ci man xam naa il est le plus informé il est le plus informé il est le plus informé baa gis nee na yéen xam ngeen yéen bés yi ñoo leen information ah? ak ak wax yéen montre yéen naan la suñu tool yi montre la ñuy xaar pour ñoom ñu yor naan doon bàyyi des moom mooy jox ñooñu wax mooy jox bés ak wax ak jamono moo leen jox information. ndax moom fi mu dëkk moom fi mu nekk boobu jamono amul. mooy détaillé ko yonante bi bàyyi na dama ko laaj lundi mardi mercredi ba jeex dama ko laaj samedi dimanche dama ko laaj janvier ba février ndax am nañu alaaj Ibrahima man ba ma nekk yonante bi vendredi samedi amagul janvier ba février ba mars amatul demal nga laaj yi képp laaj

waaw loolu ay wax yu góor yàlla la. mu ne képp ku mas a xam. bàyyi wax ci li nga xam. maqaama ba la tëbb ngay wax ci li nga xam. jami itti jëlee aaree ñu tënk suuf. maanaam aarif billah bu ma sax xam ba génn di wax baa bu ma sax xam génn di jëf mu ne man la. wa maa tashaa'i'uuna illaa tajriba zaatiha maanaam la leen wax loo la leen wax loo wala la leen won ba ñuy wane la leen won ba ñuy wax wala la leen yëgloo ba ñuy wax bàyyi na man la. tax mu ne rey nañu xalaaj te xalaaj lu ndaw la wax ci li ma xaw laqad qutila al xalaaju duuna maqaalihi rey nañu xalaaj te xalaaj nee na anal xàqu rek la wa maa qawlatul xalaaj dem leen ci livre xalaaj yëpp ay waxam firéegul samay wax man parce que fi may waxee moom xaar wax may waxee xaaruñ ko samay wax firi na waxi xalaaj waaye waxi xalaaj firéegul sama wax loolu noonu leen la xamee kenn ku ne na lamb boppam ndax góor yàlla yi ci monde bi yëpp wax ci yàlla jaaxalu leen waaye li ngeen wax yéen taalibe yi bàyyi ñu jaaxal àll bi ba tey seen wax yi ñuy wax ay yéefar leen ay wax yu rëy rek la ñuy wax te ñun waxaguñ benn politique yàlla ne waxam dafa rëy ndax seen i wax suñu wax firi na ko waaye suñuy wax firiwul seen wax wala moom seen wax dina ko firi suñuy wax te suñuy wax ñu firi seen wax loolu mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass kon bu la waxee waxaatul tasmauna

Ja, das war ein toller Punkt.